Cobra Tidiane Faye Tidiane jëlaat na tànk bi deuxième fois ndax bi dina baax am du baax rëcc na Cobra ngi ci suuf roof na caxabal ba wéer na ko Tidiane Faye daan na ko laay laay la laa da ko roof caxabal wéeru ko laay laay la bi jël na wuu Abdou Fall Diaw waaye xale bi mën a bëre waay ma ñëw ci combat bi jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar jël na ko sol na ko sol na ko kal na ko daan na ko laay laay la laa woo pop pop pop pop na wee lal lal lal woo jël na bu mag bi Tivaouane Peul moo féete sunu càmmoñ buuba bu yëmbal ma ne féete ar baa ngi ñoom booy bi saawoo bu Tivaouane Peulh ndeysaan contre ko ndeysaan booy bi saawoo buuba ñi ngi xeex ñoom ñaar daje nañu jël na ko jël na ko daan na ko laa ilaaha illallaah dina ko daan daan na ko sayee buuba daan na ko buuba daan na booy bi buuba daan na ko Bouba daan na ko xool bi ñu koy tàccu supporteur Boy Bissau ñi ngi tàccu Boy Bissau ba nga ba daanu. xayta jël na sengoor gi gàlloo ko daal di tibb suuf booy ñang tibb suuf ah waaw waaye ñoom yàgg yàgg daje daj ah waaye booy ñang sànni na. Boy Niang door na door na xayta rëb mi ne ko jël na kuuba xayta Boy Niang jël na ko door na ko jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar ah bàyyi na ko door na ko doolaan na ko ku Boy Niang Boy Niang xayta ah laa ilaaha illallaah am na lu xaw Boy Niang door na ko mu daanu Boy Niang door ko mu daanu Boy Niang door na xayta mu daanu alliance bu faas moo ñu wan ginnaaw alliance Boy Dakar Tigo Tigo sànni na Boy Dakar jël na tànk bi Boy Dakar jël na ko jël na ko Boy Dakar mu ngay teq tànk Boy Dakar jël na ko nday laax la laajte ko bañ na Boy Dakar ñay war na ko ndombo Boy Dakar war na ko ndombo jeex na laa ilaaha illallaah Boy Dakar daan na ko Boy Dakar daan na Tigo lu arbitre yi wax arbitre yaa ngi wax arbitre yaa ngi wax de booy wax xoolal Boy Dakar waay Boy Dakar waay Boy Dakar Tigo Tigo bañ na. jeex bañ na. Eh, eh,